oustaz Maodo Faye ñu ngi dellu di la nuyu di la bëggee di la ziyaar di amati mbégte bu baax a baax a baax jërëjëf ci tënku xibaar yooyee naka nga def ak naka suba si. waa sant yàlla bu baax di la ziyaar bu baax di nuyu ñëpp. jërëjëf waaw di muñ ah. boole ci di muñ. di muñ ak di moytu. ak di moytu am na solo bu baax a baax ah. euh, tey le 19 novembre 2020 man yaakaaroon naa ne tey moo fi ñëwee du ma la fi fekk. <laughs> damay laajte rek eh, Nicolas tu n'es pas sérieux déet man ba may xëy laa ne ah gannaaw xam naa ne bu ma demee rajo tey du ma fa fekk Maodo Faye ndax Maodo Faye dafa am xew ban xew laa am ah du dañuy installer conseil économique social environnemental oui ah Maodo Faye dama yaakaaroon ne euh, président bu bees bi ah hmm. ak euh, Maodo fay waa macha oui loolu loolu mais man dama ñëw liggéey si rek. Ah. loolu kay beneen affaire la. Ah, loolu beneen affaire la. Oh. ah d' accord. léegi euh, gannaaw dañuy installé conseil bu bees boobee. Mhm. Euh, te sa xarit euh, di président bi léegi. Mhm. fàtte xaju fi de la ñu wax n' est ce pas. déedéet la fàttale dina la neex. ah ba ma lu sama yoon. aywa kon ma fàttali la. Nomination du président du Conseil économique, social et environnemental. Monsieur Idrissa Seck. est nommé président du conseil économique social et environnemental. nga ni ma Idrissa Seck. non non non non mënul nekk Idi. dama fësatu la yéene ci politique am ci kilifa gudul peuple sénégalais. waa mais kan lay dégg muy wax noonu Idrissa Seck mooy wax lii. donc station yi ma mën a toog ñeent yi rek la. conseiller municipal u Thiès. conseiller régional u Thiès. député à l'Assemblée nationale. wala président de la République. ah bon.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 respecté naa ko déglu naa ko taataan naa ko dugg na itam ci processus bi nga xam ni ci laa jëlee décision bi ñuy jël non man ba léegi nag mënumaa gëm ne sa Seck moom mi fi waxoon démb ak barke démb ne xalaatul sax am benn poste de responsabilité boo xam ne daal bu dul bu ko askanu Sénégal jox xalaatukaa nag am fi ci biir réew bi tey jii kon moom moo nangu ñu daal di koy tàbb ci bopp conseil économique social et environnemental kon tey yow Idi nangu nga ànd ak Macky Sall mais Idi yow tamit nag franchement lan moo waral li ni mel. boo seetloo àddina bi fu ci bari seen économie nërmeelu na ndax.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 wax dëgg yàlla yomb naa muñ nag. mais quand même monsieur Idrissa Seck lii nag mun na laa rey politiquement. te comme dañ ma tàgge ay tàgge yu bari ci politique te ba léegi may dund <laughs> jàpp naa ni loolu duma ci bàyyi xel. bon monsieur sa Seck xam naa dañu lay bàyyi ndax dafa mel ni ne danga nga xaw a sonn. nelawuma lu bari. waaw mais laata ngay dem laata ngay dem tëddi. léegi mun nañu wax ne comme lëngoo nga ak Macky ñeen ñaar mun ngeen ànd léegi di bàkku. naan fañ fañ fañ. wacaaca. fañ fañ fañ. <laughs> non franchement c'est pas sérieux quoi. ay wàccaacaaki ay fañ fañ fañ c'est pas sérieux hein. minutes euh, boobu mooy VAR Sud FM dégg nga de. waaw waaw mais dégg naa ko léegi nag yow loo ci bëggoon. déet nga commenté. c'est simple non malheureusement. ah amoo commentaire booy def ci lii. pas de commentaire ah d'accord ok. lii daal jaaxaloo la dara c'est tout à fait normal. je n'ai aucun commentaire. ok kon nag kon nag <laughs> ñu jàppee ko noonu. voilà. <laughs> <laughs> ah kon tey la ñuy installé conseil économique social et environnemental. waaw loolu loolu nag xanaa am nga ci commentaire. waaw bien sûr parce que xam nga damaa respecté avis yi ñu teg ma déglu. waaw war nañu respecté sama avis. waaw d' accord léegi yow commentaire ci li xew tey kon. voilà li may li may euh, li may li may commenté mooy euh, foofu béréb la boo xam ne bii yàgg na fi. depuis ci président Abdou Diouf ñoom Famara Ibrahima Sagna mi jiite woon nañ ko fii ñoom Mbaye Jacques Diop ñoom ñëpp jiite woon nañ ko fii conseil boobu day yëngu ci wàllu économie ak wàllu liy doxal société bi ak environnement maanaam li ñu wër ndomba euh, bokk am na beneen nag boo xam ne moom lañ tuddee H moom lañ tuddee HCCT boobu moom euh, mooy jëm ci wàllu collectivité territoriale yeeg yu demee noonu te Tanor nekkoon fa ak euh, léegi Aminata Mbengue Ndiaye nekk fa bii nag effectivement mais ña fa nekk Macky Sall moo leen di nommé moo leen di moo leen di moo leen di moo leen di tabbu ñu ñu teg leen foofule léegi nag tey hmm. mu fab ko teg ko ci loxo loxoy Idrissa sekk jëlee fa Aminata Touré hmm. tey ci alxames yi ñu jàpp ne dañ koy samp njort nañ ne i tamit kenn ko jox boroom xam-xam la bon voilà hmm. ah d'accord euh, parce que nous, nous en politique n'est-ce pas li ci kanam raw li gët voilà kon loolu leer na euh, oustaz euh, gannaaw euh, actualité politique boobee mhm. am na yeneen i actualité yu xew ci réew mi mhm. bokk na ci actualité bu jëm ci wàllu santé Euh, gis nga li xew jamono yi ak euh, notamment piroguier yi ak ñii di dem ci géej gi gaal yi mhm. euh, moo xam ñii dem nappi dellu si et cetera ak li nga xam ne moo commencé feeñ defe naa ñu ngee tudd Caaroy sur mer ak li ko wër ak yi tëngeej ak yooyu mhm. muy loolee tubaab naan maladie mystérieuse ba léegi xam nga xamaguñu exactement lan la mhm. naka la ñu mën a expliquer yenn yenn phénomènes yi waaw xam nga xam nga yàlla subhaanahu wa taala dafa waxoon ci alquran ne fas saharal fasad fil barri wal bahri bi ma kasabat ay diinaas su fekkente ne eh, defe naa sax noonu la aay bi noonu la tuddee tëddee effectivement ndaxitam lañ cee teg sax mooy dañuy dem ba mu ñam looñu la nga xam ne yàqoon nañ ko alors euh, yàlla mooy wax ci alxuraan ne bari na yàq gi mu ngi ci kaw suuf corruption yàq yàq yi bari na ci kaw suuf si ak ci jéeri ji maanaam suuf si ak géej gi ba nga xamee ne fii nu toll nii te loolu kenn defu ko ku dul loxo doomu aadama xëy na dañoo agressé lu baree bari wala xam yi dema dema dem ba yooyu yëpp am dafay gis nañ ni mu mel mais xamaguñ lu ko sabab te tey dégg nga ci xabaar yi gouverneur bi Alhassane Sall mu dem euh, bañ def ay prélèvement dem yóbbu ko ci institut Pasteur loolu ñu seen xam-xam màcc ci wàllu affaire boobu wàllu wér-gu-yaram lañ ciy déglu après ñoom ñu déterminé wu ne nangam la. Hmm. waaye bu malgré en dépit de tout cela maanaam bu yooyu yëpp jàllee ba jàll nag dañoo war a xool euh, fan lañ toll yàlla ak fan la àddina bi toll. su ko defee itam mm, yooyu di am ndax lii nag yàlla waxoon na ko ci alxuraan itam nee na woon dinaa leen teg ay nattu ay feebar moo xam ci géej gi la moo xam ci jéeri gi la waaye nag am na jamono boo xam ne bii nag bu yàlla ñëwee ki nattoom benn arme rek moo fi sës mooy ak xel mu la yàlla mën a jox hmm. mooy nga taxaw bu dee feebar nga nga faju waaye nag nga nga nga nga ko sa xol natt bu dee natt bu la yàlla teg la waaw hmm. Hmm. ñu ñu kon ñu ñu ñu dellu suñu borom bu weesoo euh, borom xam-xam yi ak li nga xam ne nar nañu koo wax ci ci lii waral yu ni mel. waaw mais aussi ñu boole ci daal euh, dellu suñu borom. bu baax parce que yàlla di ñaan ak di ko sant ak. di ko parce que yàlla waaw parce que yàlla euh, Nicolas bul fàtte ne yàlla dafa waxoon ne dinaa leen woon ay exemple mhm. malheureusement du ngeen xam. exemple yi ma leen di jox par parabole laay waxee. mais du ma ñëw ne la Nicolas tey dafa ñëw sol benn kap bu mel ni déedéet yàlla du waxee noonu. yàlla day ñëw rek teg benn misaal. misaal bi nag yow euh, ci ngay ci ngay jànge pour mën a décortiquer message bi nga xam ne moom la subhaanahu wa taala envoyé ci sur moo tax mu wax ci alxuraan ci téeram bu sell bi wax ne dinaa leen woon ay missaal ba ngeen xam ne man li ma nekk dëgg la. Hmm. waaw. Mhm. waaw dinaa sa nurihim ayatina la yàlla waxoon fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq dinaa dem di leen woon di leen woon ba ngeen xam ne kat hee ndekete wuute man yéen da a dëgër bopp rek yéen nit ak jinne mhm. mais xam ngeen ne man dëgg gi man dong maa ko yore léegi nag misaal yooyu hmm. ci la yàlla di jékki-jékki tàng tàng bu metti àddina hmm. bi tàng ñu jékki-jékki ñu ne bato sàngam suux na hmm. ñu jékki-jékki ñu ne feebar sàngam génn na ñu jékki-jékki ñu ne euh, mbas mi corona ñëw na ñu jékki-jékki ñàkk am xiif am euh, feebar yi di rey nit ñi di bari lu ñuy faatu nit ñi wératuñu yàlla ne bu bu keroogee nag ñi nga xam ne fab nañ seen xol jëmale ko ci man nañu muñe loolu waaye man maay tege nattu loolu leer na wante yàgg naa di dégg oustaz ñu naan yàlla yàlla bay sa tool euh, bu dee suñu borom dafa am ay misaal yu muy wane euh, loxo doomu aadama moom du ci mës a génn bu ma jëlee exemple euh, ci la ñuy waxtaanee fan yi yëpp jamono yi yëpp muy immigration clandestine ak xale yi nga xam ne ñu ngay jël gaal waxoon naa la fi bërki démb ne danoo toll jamono joo xam ne danoo dem ba léegi kilifa yi dañuy wax sax mais xale yi dafa mel ni déglootuñu sax kilifa yi et waxoon nga ma ko ne ay jamono yenn kilifa yi bu ñu taxawoon rek lépp lépp day daal di euh, ne tekk euh, ndax euh, voilà maanaam naka lañ koy waxee li ñu li ñu li ñu am ci ñoom ak li ñu leen jox ci cër donc mooy loolu mais léegi bu ñu demee ba jamono joo xam ne léegi kilifa yi dañuy wax di waxaat sax donte la majorité ñu ngi leen di déglu ba tey ak di leen bàyyi xel par rapport ak recommandation yi. mais ñeneen ñi di dëgër bopp ba tey euh, duñ duñ ci bàyyi xel wante ci xeetu dëgër bopp boobee dafa am aussi loxo euh, ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi on est d'accord léegi euh, boobu ba léegi ñu ngi doon xaar ne ñii jiite réew mi lan la ñuy indi comme solution par rapport ak coowal immigration clandestine wër àdduna jamono yi ñuy waxtaanee Sénégal lu ñuy waxtaanee Sénégal ci xale yi jël gaal yi ñu gis ne président Macky Sall fan yëpp ñu ngi ko doon wax ci média yëpp ne ba léegi réagirul à part benn communiqué bu mu fi defoon. wante démb yëg nañ ne ci conseil des ministres finalement président bi réagir na léegi li mu décidé mooy créer créer ti benn kii nag lañ koy waxee sax benn. benn conseil. waaw conseil yi bëri nañ de tamit. waaw benn benn xam nga da genre genre mbootaay la. goo xam ne gii mbootaay yi bari nañ tam. ay ministères yu bëree bëri lay concerné d'après man communiqué bi ma lire ah ci. Mhm. ci conseil des ministres bi su ko defee ñoom ñuy waxtaane yan modalité ak yan ay roq-roq lañ mën a jaar ba mën a jàppandalal emploi des jeunes euh, fan lañ koy mën a jaarale ba loolu conseil boobu daal di koy mën a jàppandal waaye xam nga euh, euh, loolu loolu bu ñu déggee wolof bu dee wolof la ñuy wax li nga ciy dégg mooy comme wax na ko nañ ne onhon ba ban koy gis déet dama ne conseil yi bëri nañu bureau yi bëri nañu ah projet yi bëri nañu damay waxtaan sànq ak benn jeune bi may agsi mu ne ma ci mais est-ce que du ngeen wax ak suñu kilifa yi ñu ñu jéem a méngoog jamono jéem a wax ak nit yi jeunes yi directement te ñu bàyyi seen i kayit yi ak seen i création de bureau yi dul jeex yoo xam ne dañ fa am ñu ñu fay ñu ñu fay fekk ñu ñu fay casé ñu nekk ku nekk di di nekk ci seen business yooyu noonu mais mënuñu wax directement ak jeunesse bi sans sans intermédiaire contact direct. ay bureau tamit di ko créer noonu rek muy dem di wéy rek comme sa sa boobu noonu ñu doon waxee waxtaane sànq am na fi ay H H naka HCTTT ay waa y en a beaucoup ah des bureaux créés comme ça à gauche et à mais lii nii <laughs> je sais pas mais xam nga xam nga xam nga aussi il faut ñu il faut il faut ci ci ci ci ci. ci xam nga xam nga ñaata ñaata mbir yu concerné emploi des jeunes lañ fi créé gum boobu ak léegi oustaz. mais xam naa ko en tant que journaliste yaa ngi koy dégg boobu ak léegi. yaa FNPJ. ANP bon ah. est que est-ce ngeen ba xam ne ba xam loolee lépp ñu créé pour emploi des jeunes euh, liggéey bi ñu jot a def ak fan lañ ci toll. parce que man mosuma dégg communication bu jëm ci loolu. balaa ñuy euh, créé waat lu bees lii. yàlla dogal na yàlla dogal na ci li nga wax ni tey ci réunion bi rek man maa ngi joxe xel boobu. Hmm. may wax ne bu fekkente ne da ngaa wutoon ay agence yu bëree bari yenn yi nga boole leen mu nekk benn nga dem ba jamono ñëwaat léegi nga ni damay defaraat benn ak benn kon yow léegi rôle agence yi nga xam ne moom nga njëkkoon a def ko lu mel ne ANPJ wala FNPJ ah ak ay product yeneen ak yeneen ak yeneen kon yooyee kon lan la doon jariñ ak lan moo doon seen résultat. it ci ci réunion pour ñu discuter ci xool nu ñuy def xaw ma après lan lañ mujj décider mm. alors muy benn ñaareel bi tamit mooy euh, loolu bu fekkee ci dynamique boobu la ñuy waxee ba léegi xam nga état tamit dafa am nu muy doxee xam nga un citoyen comme simple comme benn Maodo Faye nii nekk ci mbedd mi moom moom moom moom moom vision bi muy am ci yëf yi mm-hmm. bokkul ak ki nga xam ne moo nekk au sommet de l' état moom gis-gis bi muy am mm-hmm. par exemple xam nga booy nekk ci état da nga am un programme mm-hmm. programme boobu lee da nga koy samp am ay ministère am ay ñu lay jàppale ci biir ministère yooyu nga am ay ministre am ay ay démembrement comme ministère de la jeunesse affaire yi demee noonu démembrement yi kenn ku nekk am laaj ci woo xam ne wi dañ la ko jox léegi nag ki nekk ci kaw moom xëy na day dégg day day day dégg kenn ku nekk la nga liggéey xëy na ci moom lay yendu si wala mu fanaan si ci moom cest que lépp ci moom lay concentré waat mu xool léegi nag yooyu information yooyu mu le chef de l' état am na ay renseignements généraux am na ñu koy informé boo deful ndànk sax am na. ñeneen euh, ñi entier chef d' état am nañ ay renseignements généraux am nañ et cetera et cetera nous pas de ça est ce que oustaz Maodo Faye très honnêtement considéré nga ne euh, président de la république par rapport ak yenn actes yi muy posé ci yenn urgence yi méngoo na ak jamono euh, ak na mu war a doxee. ça est moom nu maa toog fi wax wax ko wax. sotti ko ko directement ci ni muy doxalee est-ce que yow yaakaar nga ne méngoo na ak na mu war a doxalee. waaw léegi da nga ma ciy laaj sama point. waaw yow laay laaj waaw ah, kay d'accord waaw mais man mënu ko teg d'accord bon xam nga man li ma ci jàngat bi ma ci am moom mooy ne. Hmm. bu fekkente ne ni muy doxalee. Hmm. dëppawul ak bëgg-bëggu askan wi na xoolaat boppam. Hmm. waaw kay. parce que moom ci boppam dama laa wax ne la am na ñu ko wër nga ne ma comme dans tous les pays du monde. man damay mm. mais man la mais nous sommes mm. parce que man bu may wax ci réalité bi nga xam ne moom laay yeewoo di ci fanaan. Mm. di ci yendu ci laay wax mais xam naa ne Mauritanie looloo fa nekk Mali looloo fa nekk et cetera. mais ñun réalité yi ñuy dund. kilifa bu fi ñëwee. yëkkati war a def. def googu dañuy war a xool finalité ba su fekkente ne jural nañ askan wi dara. su su ko rëggee ñu ne alhamdulilah rabil aalamiina. léegi oustaz sur la question mm-hmm. na macha allah. Mm-hmm. que gis nga ne euh, méngoo na ak lii war a xew parce que bu ñu ci tegee yeneen i agence te yële ba tey amuñu ci peut-être résultat que loo euh, quelque part même bu dispersé woo yooyu ko taxoon na jóg euh, est-ce que gis nga ne méngoo nañ ak ni nu war a doxalee ñoom. waaw su fekk xam nga xam nga xam nga. est-ce que est-ce que si li nga waxoon nga baal ma bërki démb euh, finalement dafay mel ni askan wi ñoo ñoo mag sax wala ñoo ëpp xel sax. ñenn ñi ci ñu ko sañ wax. parce que dafay mel ni askan wi daleen leen mooy li ma la wax léegi di dama ne la li ñuy wax lépp lu ñu mën a def ci àddina te te askan wi gisuñu ci seen bopp loola nañ ko soppi def loo xam ne lii ca la askan wa di gise seen bopp léegi nag est loola dox na wala doxul bu fekkente ne ñoom dañoo lajj ca politique boobee résultat bi askan wee ko njëkk yi xanaa xamuloo ne Nicolas lépp looy def ci àddina bu fekkente ne amoo ci résultat jëru sax nga koy wax hmm. day feeñ ci askan wi hmm. askan wi ñoom seen bopp ñooy sentir ne ñii li ñuy def hmm. yëguñu ko fenn sentiruñ ko gis nga chômage bi tey la gën a bari na wax naa ko fii benn bis ne am na fi benn candidat dafa am ñoo xam ne ñi dañoo nekk ci terrain bi ak ñoom di seen ku jëm si il y a l'opposition mm. tous ces trucs là mm-hmm. mais en tant que journaliste man mënu ma am féete li ma man rek mooy man joxe ci sama xalaat kat ñu ngi opposé wu noonu mën opposition mu ngi opposé wu mu mën moo tax li ma la moo tax la ngi fii saa su ne mu génne leen ay këyit

quoi. njariñ. mais lajj nga c'est tout. Mm. loolu kay amul lu ñuy nëbbu léegi nag boo lajjee nag ba pare. Mm. jeunesse bi ñoom dañuy xam ne emploi yi amul ñu ne nangam ji amul ñu ne nangam ji amul bu keroogee. Mm. <laughs> léegi nag kan mooy dem wax ak ñooñu wala ñooñu ay carte leen fii wala dañuy xaar bi élection yi ñëw wala wala wala wala wala loolu nag bu keroogee peuple bi la peuple bi ñoom ñoo ñoo yore seen cëggal guy. Hmm. dama doon déglu euh, démb xaw ma bërki démb Alaaji Assane Gueye bu RFM mu wax lu am solo mu ne dafa seetlu benn bés def naa Lions yi ñoo doon jógee euh, ci ci benn compétition euh, africaine. ñibbisi nee na mu seetaan mu gis engouement bi am mu ne moom au delà de l' bi bi ñu suscité te ñëpp am ci fierté mais moom li ko ci gënoon attiré mooy le nombre impressionnant. an de jeunes yoo xam ne suba ba guddi jot ñu topp ci benn convoie euh, te ñu bëri lool lool lool euh, mu nekk jeunes yi ngay gis un peu partout et tout le temps muy posé wu la question mais ñii ñëpp mais naka la naka la nguur gi def ak ñoom maanaam ñii ñëpp nga xam ne euh, da nga leen di gis ñu ñu bëri lool macha allah suba bëccëg ba guddi. emploi amul wala doy na maanaam mu mu gis ne loolu loolu dafa waroon tiital sax état ci ci yoon waaw mais am na benn am na seen benn ministre bu wax ne gouvernement bi mësul wax ne toujours dafa leen di wutal dafa leen di wutal yéen ñëpp liggéey waaw loolu moom mënta ne mm-hmm. non problème d'emploi mm-hmm. ñu ne état et puis sax am na ñuy défendre benn benn di wax naan état nekk fi pour wutal nit ñi liggéey mais dafay faciliter yoon yi. Hmm. maanaam maanaam day jàppandalal voies yi nga war a mën a jaar ba loola am. Hmm. mais pas état mooy ñëw ne la Nicolas kaay nekk maçon wala menuisier. Hmm. donc loolu dégg naa ñoom ci seen bopp ñuy défendre euh, thèse boobu. alors xam nga loolu mën nga ko jàngat ci beneen aspect ci ci boo dee def émission interactive. nga xam ne boo dee 9h 10 nii yor-yor bi. nga ubbi téléphone bi ñaata nit ñooy téléphoné. ñu ci bëree bëri ci kër yi la nekk. surtout jigéen ñi yoon euh, waaw waaw hmm. la boo ko tijji woon six heures du matin nga wax ko hmm. léegi daan ubbi naa kii bi hmm. euh, ubbi 628 bi léegi joxe benn sujet fii six heures du matin ba dix ci ngoon gars yi dañuy woote da ngay yàgg nga ne est am na ku xëy liggéey ci biir Sénégal donc loolu nag dañu wax ne booy nag yéen a ubbi téléphone bi <laughs> waaw waaw wax dëgg yàlla <laughs> ñun tamit kër kenn du ñun kenn du yéen waaw dëgg dëgg la de léegi nag bu ko defee nag léegi bu ko defee li ñuy wax gouverner c'est prévoir mm. kii gouverner nag moom lay mooy war a am xam-xamu mm. man su ma nekkoon tey jii ñu ne ma léegi yow yaay gouverner dama mm. xam naa sax am nañ xam-xam bi ndax ëpp ma leen ko mm. wala ñu ne kër gi maa ko yore wala fee maa ko yore wala quartier bee mm. dama naan kër comme daaw lii daloon na ma ren du ma dal wala boog danaa prévoir ak samay conseiller lan moo war a ñëw ëllëg et cetera parce que amul benn xel Nicolas ci àddina bu yàlla matal nga doy cent pour cent nekkal président de la république may mm. yàlla mayu la ko mm. nekkal directeur yàlla mayu la ko nekkal mm. président ku man a doon nekkal kilifa diine koo mën a doon yàlla ma la xel moo xam ne mii yow kott cundum li ngay xalaat rek moo baax te sax ñaare borom xam-xam yi dañ wax ne boo xalaatee dara ba koy bëgg a def nee na poser le pour ba le contre ba pare mm-hmm. waaw xam nga xam nga man nga mën nga mën nga topp sa affaire rek dem mm-hmm. gannaaw ëllëg nga récc ko. Mhm. alors que mën naa am xëy na am na noo xam ne boo ko defoon. Mhm. da nga am ñaar yëpp. Mhm. da am danga am lii danga am lii. am na solo euh, sànq yaa ngi tudd ne euh, am na benn kilifa bu nekk ci gouvernement bi bu wax ne euh, mënuñoo jox yi emploi ñëpp. wante xam nga am na lu ma la fi waxoon tamit nee la ñi nga xam ne dañ leen dénk yenn post yi. ak ñi ñu ko sañ a wax euh, ak euh, la ñu war a doxal ci liggéey bu fekkee ne dañu leen dénk yenn yi te ñoom li leen intéressé mooy di wane seen pété ci politique saa su ne wala di pasar pasaree xaalisu réew mi léegi après nga gis jeunesse boobee nga ne mënoo leen jox emploi ñoom ñuy teg seen bët ci ni ngay foowee alal seen alal ñoom ak euh, saa su ne non seulement danga nga da nga leen di da nga koy foowee mais en plus ak benn benn benn euh, xeetu euh, une façon de faire qui est tellement bizarre boo xam ne euh, jom sutura sax da nga koy da nga koy da nga koy jom maintenant léegi jeunesse boobu noonu nga naka ngeen bëgg ñu comporté woo bu fekkee ne ñii ne ca kanam wane wu ñu la bon exemple. da xam nga fa waroon a tàmbalee bala nga wax ci jeunesse boobu da gis ku liggéey ci benn société te loolu bari na ci biir Sénégal rawatina fii ci biir Ndakaaru mm. dem ba war a retraité sa doom ñëw la. Mm. man j'en j'en mais waxoon naa ko fi ne sa doom bu amee compétence bi y aucun souci. loolu bu dee sa bu dee yaa ko moom aussi amul benn problème. mais si c'est récurrent. waaw d'accord amul problème mais kilifa yi laa wax ci boppam ñi ñu fal ci ay postes. Hmm. yoo xam ne ils sont censés représenter la population d'accord di wane le mauvais exemple saa su ne léegi après lu xew ngeen ne jeunesse bi mais jeunesse bi kan moo leen wan euh, les mauvais exemples. pour commencer kan kan amul argument da ngay wax loo xam li kenn xel du ko mën a nangu mm. parce que li nga wax ni ku am mm. argument dafa war a layal mm. jeunesse bi lu tax ñuy dund lii ñuy dund waaye ñoom tamit lu tax ñuy def lee la ñuy def xam nga xam nga dafa am benn borom lii ñuy kat ñëpp gis nañ ko waaw xam nga xam nga xam nga benn à moins qu'on se voile la xam nga dafa am benn président bu nekkoon Amérique bu ñu daan wax Kennedy euh, John Kennedy dafa waxoon ne JFK waaw dafa waxoon ne yow boo nekkee ci sa digg doole war a dugg biir àddina. Hmm. yow xoolal loo defal sa réew waaye bul xaar loo sa réew defal. Hmm. parce que un un dañ koy bâtir. Hmm. te buñ koy buñ koy tabax. du président du man du yow ñun ñëpp ñoo ci war a bokk. léegi nag keneen di ne. yow bala ngaa laaj yow. ah li la état bi defal yow loo defal état loo defal réew mi yow. léegi yow boo ah. def boo defalee réew mi ah. te ñi war a doxal mbir yi euh, di jalgateeg yu yu ni mel mais quand même da ngay dem da ngay frustré euh, qu'on se dise la vérité quand même. Ah. nga ngay gis ñi nga xam ne ñoom la ñu euh, fal ci poste yeeg yooyu ñuy def lu leen neexee yow tamit nga naan nga bëgg ma gëmloo donc il faut que yow nga xalaat ba pare lan nga def mais attends. xam nga xam nga dama laa ma sa wax fi dama laa ma sa wax ne la. yi nga fi wax yépp du information pour man xam nga lu tax. information la de jamono yi ñu toll. oustaz nga baal ma de waaw mais information a wax ne la loolu. noonu la Sénégal dox hmm. la mel que c'est tout à fait normal. non on est mooy man nekkul lu bees ci man parce que ci Senghor ba léegi nii lay demee. Hmm. lu donte ñaari at maa ko magee. Hmm. moo tax man la boobu ba léegi. même Abdou Diouf. c'était comme ça. léegi nag léegi nag léegi nag duñ ko ko soppi. léegi moo tax ma laaj la question bi léegi na la léegi bu ne ba war a soppi. Ah. ana koy soppi est-ce que c'est l'opposition ou la jeunesse. Hmm. wala le peuple. am na solo oustaz ñu dem ca WhatsApp. bu ngeen bëggee bokk ci bile émission jokkoo ak Nicolas wala Maodo fay mën ngeen yónnee seen message wala woote ci numéro whatsapp bile di 77 959 51 53 77 959 51 53 asalaamaaleykum wa rahmatullah alxaaji Maodo Malick Faye maa ngi lay ziar bu baax a baax waaw man de sama question ñaari question la amoon ah, ñi nga xamante ne nguur daf leen a jaral lu ne si àdduna ba tax ñuy rey ay bakkanu doomu aadama ëllëgee lan moo leen si mën a fekk ak ñi nga xamante ne dañuy xëccoo suuf di jël ay suufu jàmbur di jaay di daal def seen lépp ci suuf daal jaral leen lu ne ndax lan mooy seen àtte ëllëg yow mat xiyaam ci suuf yooyu ñuy ñuy ñuy ñuy jël di jëfandikoo di ci dem ba di ci defante ay sacrifice di liggéeyante ñuy reyante daal loolu daal bëggoon naa si am leeral daal. Mm. di ziara Nicolas bu baax a baax sa xarit waaw. jërëjëf mbokk mi ñu ngi koy ziar bu wér euh, oustaz dégg nga ci WhatsApp. waaw dégg naa ko dafa wax ne ñi nga xam ne politique ak euh, falu maanaam falu jaral na leen rey nit. auzu billaahi mina sheytaani rajiim euh, tamit jàpp am problème mu suuf jaral na leen rey nit ngir dëkke ko loolu dëgg la defoon nañ ci benn waxtaan maak yow fii ci wàllu foncier bi ak tama indi woon fii ay kaa yu bëree bëri ci wàllu bàmmeel ak euh, boo duggee ci biir suuf si ak yu demee noonu xam nga mm, amul benn post bu nit di xëccoo ci àddina ah? yaa ngi dégg. Mm-hmm. mu jiital jiitalu ca yàlla waaye mu jiital ci xëccoo pour éliminer nit toog fa. Mm. ba nopp yàlla seetaan ko. kooku bala moo dem retraite yàlla dana fayu yàlla nag waxuma dana fayu mooy dana ñëw fayu la waaye dana gis dana gis li mu li mu semé woon dana ko récolté ji bala moo génn biir àddina hmm. gis nga tey ñii ñu naan Euh, euh, place sangam a fa waroon a nekk waaye yëkkati nañ fa diw nangam ak nangam ñaari affaire la. Hmm. su fekkente ne ka fa dem ay pexe wala sëriñ wala yi dema noonu ay xarfa fooxa moo ko fa yóbbu comme li waa ji wax. Hmm. ba éliminer ko kooku am nga ñaari bakkaar. Hmm. ñàkk gëm yàlla dal na la. rey nga nit muy am bakkaaru rey nit. ñetteel ba mooy da nga dajeeg sa borom bu dee ku gëm pour at yow ma la. léegi nag su fekkee bu dee ku gëm. waaw bu dee ku gëm. parce que tamit yàlla dafay wax ne. am na ñoo xam ñii loo wax wax wax duñ gëm. waaw parce que ci am na fu yàlla naa ñii mu yonante bi bàyyi leen sax faf léegi man maa tëj seen xol yi hmm. parce mbas waay ndax ñii da ngay wax mu dugg ci nopp bi hmm. Hmm. génn ci nopp bële su fekkee ne nag ki koy def a fayu kooku moo ëpp doole waaye bu fekkente ne da ne man am naa pouvoir bi léegi euh, naa naa falu par force naa jël toolu jàmbur par force naa jël suufu jàmbur par force ndax ma xam naa ne su ma bindee maa ko ëppi mbokk yàlla ne déet du noon de ñooñu nag laa wax ne du ñu génn àddina mukk te yàlla wonu leen ko. est-ce que kon loolu leer na ñu dem ci ñaareel ba ca WhatsApp. waaw oustaz man damay laaj yii ñaari xale yu bëggante la xale góor ak jigéen bëggante woon génn na lu mat deux ans. xale bu jigéen bi élève la mais da nga xale bu góor bi su dikki na leen jàppalante ñoom ñaar te mu sàmmal ko boppam su jàng ba am bac mu ñëw ñaan si ko ñu may ko ko si farata yàlla sunna si Muhammad léegi ñu tënk loola xale yi nag ay mbokk lan waajur ku góor gi xam na ñaari xale yi dañoo bëggante waajur bu jigéen gi xam mais mais xale bu jigéen bi bàyyi mu jile nag moo ne sëy bi du am tànk xale bi jàngul ba dem université tànk jaa xale bu jigéen bi daal jàngul maanaam ba dem si te daal ba maanaam waroo liggéey affaire wax ñu laaj nag lan la si suñuy dina wax parce que ñoom ñaar tamit bëggu ñoo fo jërëjëf mbokk mi ci euh, whatsapp oustaz loolee de euh, le tubaab di wax xanaa amour de jeunesse waaw dafay wax ne dañoo yàgg a génn. Mm. Euh, dem ba ñu war a bëgg mën a takkante. Mm. Euh, ñu ne il faut ñu bàyyi ba mu jàng ba am baccalauréat xëy na loola am na waaye bàyyi jiitleem ba léegi waxul ne papaam bàyyi jiitleem mooy lu wolof xam ne lu muy firi mu ne daal duñ ko may xale bi li fekk demul ba université. loolu nag euh, njuumte la loolu njuumte la. Mm. ndax waaw njuumte gu rëy la. waaw parce que dem université jotewul dara ak sëy waaw jotewul dara ak sëy bu dee dañoo bëggante te xale bi am lu mu ko mën a yoree dañuy ñaari jullit te di ay bokk. même même bu fekkee ne nga baal ma euh, dem université bi lañ ci séentu mooy euh, assurer sa avenir déjà. waaw boo fa demee te amoo ko nag. <laughs> y a des chemins ah, ah. comme comme mën nga fa dem nga nga allah nga dagg ay diplome yoo xam ne. sa avenir da lay da lay jëriñ. mais mën nga faa dem euh, dagg fa ay diplômes sa avenir da lay comme mën nga faa dem loolu mën naa bañ am. Ah, loolu it am na mën faa dem am loolu ba noppi sëy ba bañ a yàgg. Hmm. xam nga loolu lépp dañ koy war a sóoraale mm-hmm. beneen bi ci tegu tamit ñaare ki njëkk bëgg sa doom tey sa mbokk te di as gor tey jullit te mu wóor na la yow kii alakuli sa doom ji bëgg na ko lay farata mooy nañ ko ko may ba noppi mu continuer njàngam moomu la mm-hmm. waaw parce que nag am na niveau yoo xam ni boo fa yeggee léegi daanaka yaay jàngal sa bopp ah. mm-hmm. soo demee ba nekk ay études supérieures jàngal ak yow man y a des formations y a tout ça. am nga ay diplômes. kooku wërta mën a. affreindre warut a ba àgg fi mu bëgg a àgg peut-être. après après ngeen doog a officialiser les choses. ça c'est possible. waaw c'est très possible. mais euh, nit ki waaw kay xam nga li bon mooy duñ ko may nañ xaar te ñu bëggante waaw bu ci diggante bu fi leneen xewee na. Hmm. Ah, àddina wurul di. Hmm. Ah, mën naa am yàlla dogal mar day taali te kenn ñaanu ko. Hmm. far xale yi doon fooba leneen judd ci. su keroogee nag la gàcce di gën a bari moo tax yonent bi dafay wax ne su ngeen gisee ñaar ñu bëggante mm. te itamit ñu di ay julit mm. maye leen leen mm. ay ay askan ak yii nii ñun ñoo ko ci dugal de yàlla dugalu ko ci de ay diw fii la bokk ak diw nii la loolu moom sunu su suñu yëfi bopp la waaye amul fenn fu ko yàlla waxee léegi nag euh, bu ko defee kooku li bàyyi jiit leen bi wax li mu waroon a def mooy ana xale bu góor bi nga xam ne at yëpp moo ngi ànd ak kii nangam ay mbokk ngeen kaay nangam ana imam bi mm-hmm. maye leen ay ca ana kuy doon jàng continuer sam jàng yow tamit demal continuer ca la nga nekk. Hmm. en tout cas sëy bi moom. Hmm. officialisé nañu. jeex kon ñu dem loolu daal moo gën. kon moo gënal lislaam yi looloo gën kon ñu dem ca ñetteel ba ci whatsapp. salaamaaleykum yaa oustaz Maodo Faye maa leen jaar Nicolas Sokola jaar naa leen lu bare bare ki Mouhamed Noxo lañ koy wax maa ngi région Kaolack benn dëkk bi ñu naan Padaf ci commune bu Kayemor waa di dëggal li Nicolas di wax Dakar Népal Sénégal ñu leen dégloo partout man tey dama amoon lu ma métti bëgg oustaz Maodo Faye wax ci muy coow borom ñaari tur yooyu ma a tudd nga xamante ni lëmbe na dëkk bi lan moo tax suñu gouvernement li mënu see jël dogal définitivement mu jeex Barack Obama ñëw na fii Macky Sall def na ko nous sommes pas parés ku pareegul nag yaakaar naa dañ lay teg ci condition yoo pare lii daal war nañ ci wax fekkee ñun dëkk bi dañu ko luyee moomuñu ko ñu wax ñi yaa oustaz lii laa bëgg ngeen wax ci tey mu nga kon oustaz dégg nga laaj bi eh, ndax dëkk bi dañ ko luwe wala ñoo ko moom. <laughs> xam nga <laughs> non vraiment nag yi. ah gars am inspiration. ab ab ab état ñu koy nuyu. bu baax mu ñu doon yónnee message bi depuis Kaolack ah. waaw d' mais nee na Dakar n' est pas le Sénégal. bilaay walaay hmm. slogan boobu yaatu na léegi. mais xam nga tamit Nicolas il faut ñu dellu si xel yi. Hmm. xam nga lu baaxul baaxul. Hmm. lu bon dafa bon. mais nous sommes pas dans un pays islamique. tënk tënk wuñu ci charia hmm. xam man xam naa ne loolu man bokk naa ci ñu koy dénoncé. Mm-hmm. li muy wax noonu. Mm-hmm. mais bu fekkente ne dañoo nekk ci réew mi dëkk bokk kook ñeneen. Mm-hmm. même bu dee ñooñu dañoo nekkoon sax zéro virgule zéro zéro zéro pour cent. ñu dem ci république bi xool constitution bi ñu muy demee. ñoom ñëpp ñu mm, mais quand même dañuy def euh, faut pas qu'on fasse le le entre ñeneen ñi. waaw euh, ñu ñu dippee la minorité. waaw waaw ak yenn yi. parce que bu mënuñu jël yenn yi rek def ko ci ñeneen. waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw jullit yi ñoo fi ëpp hmm. wala sax ñiy wuyoo jullit ndax jullit moom dafa jafe waaye ñiy wuyoo jullit ñoo fi ëpp bokk wala jullit yi ñoo fi ëpp ci gàttal ñeneen yi yeneen yi la yoo xam ni xëy na ñoom bari bariwuñ ndax jullit yee leen ëpp hmm. même bu dee loolu la ñu dem ci charte réew mi nday réew mi ñu xool constitution bi ñu ne nous sommes dans un pays laïque ah bu keroogee nag la jaadu woon mooy la république ba wax nañ ko def hmm. firiwul nag ne kay def lu bon moom wari su ko ko wax de ah dañ koo war lu jóg rek ñu nañ ko fi dindi ndax ci réewum jullit la nekk te charte yi doxew doxewul noonu. Mm-hmm. moo jàpp ne fële fële la. déedéet déedéet mm-hmm. ndax mës nga mi fa wax euh, mi ñëpp xam nañ ne sàngara fii jaay. waaw foo foo koñ na ñaar ba ñetti baar et cetera. absolument doo ko jël ko ñële parce que la majorité ñi ñu féete. ah kay bu dee mu moo tax ma ne bu ñu ko féetale fenn. waaw eh déet man la man sax dama lay lay yokkal wax a kon kay majorité ba ñu fa ëpp daanaka ñoo koy jëfandikoo mm. loolu tamit xel mën na ko nangu ci bu mm. fekkee boroomi xel la waxal mm. léegi nag moo tax ma ne la yooyu dañ bu doon loolu kon bu fekkente ne dañuy topp loolu rek ñu génn kon danaan loolu kenn du ko fi jaayati ñu ne baar ñu ne nañ ko tëj ndax bu dee état islamique lay wax de ñu ne sàcc ñu ne déedéet ko def nan dagg sa loxo mm. ku def li lan la door téeméeri yar mm. nangam nangam nangam mm. comme nag loolu lépp amul liñ man moom mooy di waxtaan ah bàyyi sécurité bi police ak gendarmerie ñoom ñu def seen rôle kun gis ngay def loolu te nga xam da ko wone ba ñëpp gis ko ñoom bu ñu lay ramasse réew mi am na charte ñu dem jàpp la yóbbu la ci kaso bi tëj la wala yu deman sauf soo naanee sàngara nekk ci mbedd mi di di tërëf. Mm. di saaga nit ñi di sànni ay xeer. Mm. ñu jàpp la ndànk la la ci kase bi yomb. Mm. parce que tamit. parce que ay aayewuñ la ko. alaakaar ay aayewuñ la ko. mais dañuy nga indi. Euh, euh, euh, trouble waaw trouble ah. waaw. loolu noonu la ab république di doxee. Ah, ok léegi nag su fekkoonte nag dañoo nekk ci état islamique. beneen beneen beneen doxalin lay dox kooku beneen acte la. kooku dañ naan ah waaw léegi xanaa ñun suñ sariya bi du alxuraan ak sunna ah. yonent ñu waaw ñu ne waaw kon lu tax ñu bàyyi borom ñaar tur ma ñu wax ma ko ma dem Tilène ñu wax ma ko <laughs> ma dem Ouest Foire ñu ne ma Maodo ana Nicolas wayu mais booy bi waaw léegi yow te kat am na lu ñu wax nag nee nañ Nicolas Vickery kenn du xam fu muy dem quand même waaw biir Sénégal rek déet ah, il faut il faut juste sortir de Dakar daal maanaam lan moo woon kii itteel oustaz àll bi àll bi génnal weekend nga génn Dakaaru tuuti parce que bu boobaa sax Dakaaru day xaw a gën a féex tuuti c'est nga et puis yow itam nga féexal sa xol Sénégal gis nga su ma demee côté njàmbur yooyu waaw ba nekk ci àll bi ak affaire mais sama xol bi ni muy sedd. wallaahi ak a neex oustaz. et puis damay jàng ci nature bi yàlla. wallaahi gis nga garab yi su ma leen di xool di xool picc yi di naaw. damay fab yàlla teg ko ci sama kanam. man attention kaay ma nekk sama jikko. Hmm. man lu xew lu ne ci àddina. Hmm. ah hmm. même waxoon balu fetal bi la koy bëgg a dóor. danaa indi yàlla ba noppi door a dem. il faut ma teg yàlla. ba noppi nag doog a dugg ci coow li quoi. am yàlla yàlla defal ñu sutura. Euh, wax nag. neexul dégg moo neex. waaw dégg. waaye nag dafa dégg. ñëpp nga koy def ah, waaye déggin yi hmm. mooy nga ne ah Maodo boo demee lii la wax ku la hmm. wax ne loolu laa wax quand même nel sa déggin la rek <laughs> jeex na jërëjëfati oustaz Maodo Faye sant ko gërëm ko sant leen gërëm leen sant gërëm sponsor yi mu nekkoon seen émission ndekki li émission naanite yi bon week-end dans un instant les infos li ci topp daal di cay topp kon nag euh, ba jamono euh, euh, yi incha allah jërë ngeen jëfati visez la lune tàllal leen loxo yi ñaan ngaa ngoog bismillah ci darajay xadis yonent bi